c'est jusqu'à la mort mm. jusqu'à la mort trente jours moom trente jours boo ko toogee te lekkuloo moom da ngay dee de trente jours bu fekkee yaa ngi lekk minimum trente jours ngay mën a tenir avec tes réserves xam naa on de la graisse on a notre fois qui garde un peu de réserve de de nutriments mm -hmm. voilà les muscles aussi sont moo tax boo gisee kuy grève la faim ces muscles ngay li ñuy wax ci li buy dëmm ko da ngay <laughs> dafa am ku nekk ci biir di lekk sa yaram. Uh-huh. parce que on n'arrive pas à gis nit ki di jeex comme comme bu nekkoon ku nekkoon ci biir di ko lekk. Uh-huh. donc euh, li ñuy may tey ñu taxaw nii ce matin ndekki nañu sol nañu sunuy kii on a du carburant pour la journée. sunu uh-huh. cerveau ngi fonctionné bu baax. mais boo defee grève de la faim sucre bi war dem ci sa cerveau di ko fonctionné loo. Euh, sa bët bi ubbeeku nii di pétiller yooyu yëpp doo ko am sa muscle lay dañuy fondre mm-hmm. loolu yëpp nag pour que ce système de de vie bi mën a ci nit am na benn moteur bu ci nekk boo xam ne kenn amatul amagul fan la nekk amuloo ci kër bi la nekk amuloo ci xol bi la nekk mm-hmm. mooy li ñuy woowee laam euh, bukiet euh, mm-hmm. am na lu koy nourrir c'est des nutriment kii ay vitamines ay protéines ay kii yooyu ne boo ko boo ko dul delloo ñoo ko doon renouveler comme moteur la. voilà comme moteur mmh. la. dans la l'expression de euh, de pression à un quelqu'un qui t'a mis en prison il a il y a trois trois dispositifs il y a le fait vraiment de vouloir mourir tout de suite kooku moom da ngay jàpp sa bakkan nga bañ a respirer en trois minutes euh, nga am événement bi nga bëgg dee nga en prison qui est responsable li ci war a am ci am. soit nag euh, tu te donnes un délai de trois jours boo dul fekkee naanuloo benn ndox boo naanuloo benn ndox da ngay déshydraté sa rein bloqué toxines yi empoisonné sa cerveau et tu pars voilà léegi nag booy naan ni ko <laughs> ministre ministre des ministre de la justice di tooñe que ndekki woon na xaw ma. démb rek dégg naa naan naan na suuf. voilà ah ndekki na naan na suuf même bu naanu la en réa moom gars yi di taxaw ñu ko seetaan ah. en réa defe naa perfusion yi sérum glucosé 30 pour cent yi 30 pour cent yi ñu ngi daw. Ah. donc ñu ngi koy forcé nit ki ñu ko forcé. Ah, waaw <laughs> bu ñu dem hôpital rek déjà forcé la. ah de tout. bien sûr <laughs> il était en prison forcé. la prison d'ici il va à l'hôpital au pavillon Teranga qui est très confortable te là-bas s'il n'a pas suivi qu'il continue à faire sa grève il va en réa et mhm. l'objet quand on te met en l'hôpital c'est que les les médecins ont de garde-boue pour lu ñu gis comme ennemi médical ñu attaqué ko mhm. léegi nag le la fameuse volonté de dire que bu ñu ma faj kooku day fekk nga àndax sa sago mhm. ñu ànd ñun suñu sago bu ñu ne tey Euh, monsieur si euh, bu ma daanoo bu ma yëkkati monsieur si va respecter. Mm-hmm. mais si dix minutes après ma perte de sama conscience. ok boobu moom mënatoo de. Euh, monsieur si n'est plus tenu à ce que j'ai dit il y a une demi mm-hmm. mm-hmm. il a une obligation de soins. Mm. donc médecin yi tamit noonu la ñuy def. bon xam naa hypoglycémie ñoo doon wu ba waa teraanga mënatuñ ci dara parce que bon à teraanga tu es dans ta chambre tu es yow yaay sonné wala sa mbokk sonné médecin bi di soog ñëw. kooku boo defee de trois hyperglycémie quatrième bi peut-être ça risque fatal donc ils vont t'amener en réa foo xam ne y a un infirmier un médecin dans la salle e mais et tu vous es êtes que trois conscient. malades est-ce que tu es conscient <laughs> bon <laughs> parce que bu ñu tu es conscient mais on s'attend que ça tu vas perdre euh, la conscience parce que boo lekkulee boo nangulee perfusion yi di nga di nga defaat hypoglycémie daana dans le coma ñu defaatal la hypoglycémie bu commencé tegloo day dem ba sa cerveau nekk dans un déficit boo xam ne du mën a reprendre entièrement mais docteur yooyu après njeexital yi man laa bëgg xam même bu fekkee danga nekk ci combat yii yëpp bu passé waa passé tu vas tu vas subir les conséquences di man poste bi def naa ko ñu ngi ko arrêté def naa le vendredi le lundi xaw le dimanche def naa benn post mhm. donc euh, tu as on a besoin de toi pour ton parti on a besoin de toi pour le Sénégal où il y a 90 de la population qui sont pour mhm. toi mhm. donc euh, conserve tes potentialités bats-toi autrement. bats-toi autrement. <laughs> d'accord bon moom nag moo xam lan moo ko dese parce que il a subi quand même des choses à un niveau boo xam ne aussi ñun on peut pas à sa place. Mm-hmm. mais koo xam ne dañ lay chercher partout pour euh, <laughs> xaw ma fële tëx tëxaloo wala wala. Mm-hmm. Euh, corps en jambe. l'objectif bi ñu am mooy nga de rendre éligible. ah et même te t'effacer peut-être <laughs> du plan politique xawma du plan wala du plan même. Mhm. donc euh, est-ce que tollul foo xam ne est-ce qu'il n'a pas eu un coup sur la tête parce que loolu tamit boo koy suivre pendant des années. c'est des mhm. années ah depuis depuis deux mille vingt et un. Mhm. depuis deux mille vingt et un. pendant deux ans l'histoire de viol. Euh, avec des euh, pendant deux ans mënoo exprimer wu dara ah ñu coppat la jël la la tëj la sa kër. Donc vous voyez, tout ça, c'est qu'il a vu ça. Il se peut que psychologiquement, euh, qu'il soit qu'il en a, qu'il mu arrivé à un ras-le-bol que peut-être dara neexatu ko. Hmm. Qu'est-ce qui va arriver nag bon man nag ce qui m'intéresse c'est qu'il y a quand même des éléments d'influence dans ce pays-là. Mm-hmm. Parce qu'on est arrivé quand même à arrêter le troisième mandat. hein kooku dafa ne nu gars yi dañu ko fàtte de. Mm-hmm. <laughs> troisième mandat c'était là le pays est en train de de bouillir et elle est explosée. Mm-hmm. Ça s'est arrêté. pourquoi ça s'est arrêté qui, qui a influencé qu'est-ce qu'on a fait pour que ça s'arrête mm-hmm. donc ce, ce même système-là marcher avec son... devrait venir mmh. quand on voit le Sénégal repartir vers une vers dérive euh, mm-hmm. médiatique politique euh, une atteinte des libertés à un niveau incroyable pour les journalistes tous les jours ñu te leen les médecins ñu tëj leen non kay bàyyeetuñu kenn

et puis ces avocats vont rencontrer le est-ce qu'ils vont regarder. Hmm. commissaire des droits de l'homme voilà loolu tamit laa fàtte wax tout à l'heure bi ngeen di wax affaire CEDEAO bi j'avais entendu que l'Union africaine est rentrée dedans. bien sûr fii depuis démb l'Union africaine avec un discours euh, un peu moins un peu moins va-t-en guerre. nee nañu déjà. il faut qu'ils aillent aux Nations Unies avoir l'autorisation mm-hmm. et moom moo ko war a outil au lieu du CEDEAO n'a pas le droit de faire ça donc vous voyez mm-hmm. euh, dans ce monde quand même. Euh, on a quand même des ce des des